tay vraiment yaram dawna comme na suñu wéyjur bu baax ba aladji Mansour mbey di waxé ndax biñ ñëwé tay gis ngeen am ño xam sax mënu ñu won téye seen bop ndax rangooñ wayé mu nekk bis bo xam bisu mbégte la aussi ndax euh, ni ma ko waxé sank rek ñaari ngi ni umpul kenn wala jomul kenn la bëgg wax muy kaso ak hôpital donc ñun li ñuy def tay pour man lu am solo la ñëw fi nek en communion ak suñu sœur yi si camp pénalu jigéen ñi bi nekk Liberté 6 ànd seex euh, madame la directrice madame Nogay seen ñu koy gërëm di ko sant moom mi directrice su prison bi ak madame Boub son adjointe ak l' assistante sociale ak ñëpp ñu ànd euh, sargal suñu ay sœurs yu nekk fii yu caabi féete ginnaaw euh, ñu dalal leen jox leen daf leen defal defal leen ay ay jumtukaay yoo xam ne xëy na dina am njëriñ seen nekkin fii waaye aussi.

moy partenariat bi nga xamni euh, le lieutenant Ndogoy Sène wax nañu def ko état def na ay djégo yu mat ci mbir mi loolu xam nañ ko bo setlo euh dawlo defe naa yokk budget prisonnier parce que budget par tête la xam ngeen ni euh, président Macky Sall def na ci ay djégo waye mbir mi du doy il faut que nous qui sommes des associations et autres que nous soyons des relais ñu ànd ak ñoom di len jappalé lu ñu am ñu indi ñu mottali euh, ba nga xam ni euh, seen nekkin dina nekk nekk nekkin bu neex fii si biir prison bi def naa loolu la ñu euh, wéy ko bëgg a wéyal moo tax madame la directrice que ni daal nous nous sommes prêts defe naa ni si fan yu néew dinañ gën a gisantewaat waxtaanaat xool naka les modalités d'une d'un compagnonnage ak ñoom pour gën a dimbali jigéen ñi defe naa loolu moo am solo suñu xale yi fii taxaw ñoom ñëpp dinañ ko dox ñoom dinañ fi ñëw le plus régulièrement discuter ak ñoom lépp loo xam ne mën nañ si intervenir ñu intervenir dafa loolu ma am solo